ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci Leral fi bërëb bi jumaa ji waxtu bu ne ci jamono bu ne lu dul màggal ak jamono bu ci ne ñun ñoo ngi fi di saytu bërëb bi ci lépp lu mu laaj ci setal ak worma daayira bi nag waxtu wu ne bu màggal gi jub si dafa am liggéey boo xam ne dinañ ko waaj ci seetal biir jumaa ji yëpp ba pare ci leeral fi lépp loo xam ne nii moo war a leer buñ noppee ne jublu ci dalal gani sëriñ bi nga xam ne ñooy ñëw nga xam ne ku nekk mi ngi fi te bërëb bi di bërëb boobu ñëpp ku ne lu ne ku ne ne fi euh, bu ko defee nag tere yi nga xam ne moom lañ fi tere du yenn tere yoo xam ne dañ koo ber di ko bàyyil kii wala kee mooy tere yi nga xam ne islaam moo koy diglee ko tere rek yooyu rek la ñu bërëb bi di ci yenn yi ñu ciy laabiré nit ñi nga xam ne xëy na seenu xër gu ëpp ci ni ñëwee ci bërëb bi dana laaj bu ñuy jug duñu ànd ak seen sago sax bu ko defee ñu gindi leen ci tere yi nga xam ne ñu ngi ko fiy tere tere yi nag weesuwut euh, ñu jox worma bërëb bi ba nga xam ne képp koo xam ne nii day yor am njaayam mu ñu mu bañ a empêcher ñi nga xam ne dañuy siyaare mu am nu nuñ ko organiser ba nga xam ne ki yor am njaayam du agsi ci biir jumaa ji ki nga xam ne day weccew muy manqué loo xam ne lislaam daf koy tere kooku it ñu fexe ba moom it ñu laabiire ko ba loola mu bàyyi ko koo xam ne nii tamit dafa néew doole di maajal ñu mën ko organiser ba nga xam ne moom it du empêcher ki nga xam ne mooy charge ci biir barab bi wala moom mooy def ay julleem wala leneen li xam ne moom la laaj ci beneen bërëb ci bërëb bi léegi su ko defee tere yi yenn yi ay tere la yenn yi ay laabire la nit ki nga xam ne day jaay di dem nekk ci kaw tali bi kooku da nga koy laabire nag xamal ne ko ne ko bërëbub jaayukaay nag dafa am mu dem fa ñu jaaye mu jaayee dafa fii ñuy siyaaree nit ñi fi siyaar dafa siyaaree ki nga xam ne dafa col col ko goo xam ne nii tamit laajut war ma ci biir barab bi ñu laabire ko moom tamit mu delluwaat fekkante ne fa mu jóge soriwut mu delluwaat fa dem solo jiwaat colin woo xam ne ni laaj na mën a ñëw siyaar si mu dootu ko dem dem siyaar bi su fekkente ne yeneen yi nga xam ne nag dañ ko ànd ak comme comme tere bi sim bi da ko gën a yaatal mu ànd ak suñu mbokki Baay yi yenn yi nga xam ne góor mu sol colinu góor jigéen mu sol colinu jigéen loolu tamit ànd nañ ci ak commission bi nga xam ne mooy liggéey ci Baay bi nga xam ne ñoom léegi ñooy liggéey ci pénc mi ñu waxtaan ci ba tënk ci loo xam ne ni diis na ci mën a laabiire mbooleem koo xam ne ni yaa ngi ñëw ci bërëb bii te mu wóor na la yaakaari murit yëpp fii la tëdd mu am war ma ju mu laaj war ma juuju nag ñu bëgg képp kuy ñëw nga nga indaale ko moo tax nag lii ñuy wax nii du du tere goo xam ne nii dañ ciy dañ ciy gëtëg nit ki wala dañ ciy dañ ciy fiir waaye dañ ciy laabirante ba kenn ku ci ne jariñu ki nga bëgg jariñu ñu yombalal la ko ba nga mën a jariñoo sa kem lay kàttan jumaa ji moom euh, kenn dañ naan dañ naan murid yëpp ko moom murid yëpp ko bokk kon mooy waral façon nit bu ne ngay gis kenn ku ci ne da ca la muy yëngu la fi indaale waaye bu ñëwee nag. duñ ko bàyyi moom mu defee ko ni mu ko bëggee waaye ñun nag ñooy xool naka lañ tërilee ñu wax la ko nga ànd ci sab liggéey rafet par exemple mi ngi mel ne lu mel ne suñ bokk journaliste yi buñ ñëwee duñ tëb rek film da nga dem ci ki nga xam ne moom moo yore wàll googu mu wan la ne la ñun kat buñ dee film ci anam bii la ñuy jaar li nga bëgg noo ko bëggee foo koy defee noo ko bëgg a defee ñu boole laa koo xam ne nii dana la orienté ci loolu ba sab liggéey aw yoon même si politiciens yi tamit ñu ci ëpp suñu ñëw dañuy yëglu avant bu ñu yëgloo tamit des na xam lan lañ bëgg su fekkente ne bërëbu politique nag waxuma la jumaa ji mais dëkk bi sax sëñ bi dafay ay politique. kon fii moom du politique kaay te duñ ko may kenn it loolu duñ ko du lu ñu toloore wala lu ñu nangam yi dañ ko dul may kenn moom ku yàlla bin léegi nag bu ko defee nag war ma ji nga xam ne nag moom la nit ñi moom ni ñu amante ay daraja rek kenn ku ci ne sa daraja ji nga am daal bëgg nañ buñ dikkee ba fii buñ ko yokkut duñ ko wàññi li la li la suñ borom jagle des na la ko des na la ci taataan ba nga ba nga ñëw ci bërëb bi ba delluwaat fa nga jigoon te doo ci am benn jafe soxna yi yaakaar naa fi mu nekk nii mbooleem bis ba bis ba dellu si bis bu ne am na ay soxna yoo xam ne ñoom ñoo koy nettoyé biir ak biti ci setal jumaa ji ñu ciy ànd ak ñoom ci altine bi wax dëgg yàlla ñoo gis nañ ne soxna yi daal liggéey bi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy liggéey jumaa ji am nañ ci paseef farlu nañ ci te ñoo ngi koy setal ni nga xam ne noonu la ko li lislaam bëgge te xaaruñ ci dara dañ koy ñëw def ko ci ngir sëñ bi rek dañ koy liggéey ngir sëñ bi rek mais amul leen loo xam ne ñu ngi ko ciy def ngir xaar ci dara loolu ngërëmal sëñ bi rek lañ ciy séntu ñoom. waaw wax dëgg yàlla loolu moom yàgg na jamonoy sëñ Saliou euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwri nii sax ku mel ni sëñ mi nga xam ne ah, mooy imaam ci jumaa ji moom daan na gàddu bale di bale ci biir jumaa ji muy loo xam ne jamono yoo xam sëñ Saliou moo ñu ko moo ñu ko digaloon depuis sëñ Saliou joxe ndigal léegi nag fas fas façon nañ ci yéene nga xam ne daal dara dara dara du ci du ñun ñoo ko doon defal suñu bopp muy sëñ Afi Matar ak euh, mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ngànk daayira bi ñoom ñoo doon jël bale yi di baleel seen bopp di nettoyer biir jumaa ji ba yàlla def nag kuréel gi gën a yokk ba yeneen kuréel yu bare bari ñëw fekk suñu ci ba nga xam ne am nañ kuréel sax yu bëgg yu bëgg ñu jox leen bis waaye bis yi dafa mat sëkk sëkk nga xam ne ñeneen ñi bu njëkkee dañu leen ci bis yi nga xam ne jàlloon na fi ba pare rek bis yi nga xam ne nekkoon na fi am na ñu ci nekk di ci liggéey boobaak léegi nag wax dëgg yàlla 1994 la sëñ Saliou sosoon daayira bi boobaak léegi daal lépp luy setal jumaa muy góor ñi ak jigéen ñi ak soxna yi ñëpp ñu ngi ci liggéey liggéey bu wér waaye daal bu ma la mënee wax daal mooy ci sëñ Afia Matar mi nga xam ne moom mooy al imam moom doon la yor bale di bale fii ak di nettoyer boobaak nag ñëpp ñoo ngi ci di liggéey di setal ak di liggéey liggéey bi nga xam ne moom la war a liggéey ci biir jumaa ji muy daayira Muxaddamatul Xidma ak ay kuréel yoo xam ne ñëw nañ fekk si tamit daayira Muxaddamatul Xidma ànd ak ñoom liggéey bi ndax daayira Muxaddamatul Xidma jumaa ji daf ci yaatal ñëpp ba ci am na ñoo xam ne sax sous kii ci dépression yi sax muy Louga muy Thiès muy Dakar am na ñoo xam ne ci yenn kii yi la ñuy jógee pour ñëw di liggéey si ci biir jumaa ji muy ajuma ñi gis ñoo xam ne ñoom ñooy nettoyer ak di taal ay cuuraay ci biir jumaa ji ñooñu waa Ngoy lañ xam ne ñi ngi jógee ba Ngoy di ñëw di ko def sax ajuma te mu xadamaat xam dafa woo ñëpp yaatal ñëpp mbooleem tënk yi nga xam ne sëñ Saliou ko ci biir jumaa ji daal muy setal képp ku ñëw bëgg ñu cee fekk si incha allah dinañ la ci yaatal jox la ci wax su bis boo xam ne danga ko mën a liggéey ci biir jumaa ji loolu daal moom mooy suñu taxawaay. Euh, bis bi sëñ tubaa demee bis boobu la wax woote woon ne képp kuy bi mu ñibbisee ci la wax ne nañ ma sant la yàlla ci bi waxtu bi bu dese waaye bis bi mu demee la woon. bis bi nga xam ne ci la tubaab bi yóbbu woon muy 18 safar bi bis boobu moom la moom lay moom la moom la ñuy woote waaye woote gi nag nekkul ne nu la neex rek nga koy defee ndax li mu woote lislaam la kon ñu fi war a jëfandikoo warul génn lislaam nit ki buy ñëw war naa waajal boppam. ci lépp loo xam ne lu ko lislaam tere moom moytu ko waaye li nga xam ne lislaam digal na ko tamit moom mu léew war ma nag biir dëkk bi ba ci biir jumaa ji mooy képp kuy ñëw dafa am tere yoo xam ne fekk nañ Moukhaddamatoul Khidma tere ko waaye même bu yi nit ki nekk ki nga xam ne yaakaar na ko dem dem ci moom war naa am melukaan woo xam ne melukaan wu sell lay doon ndax kuy sàkk lu baax moom jàpp naa ne war nga waajal sa bopp waajal woo xam ne boo àggee dara duñ la ko lii waaye jóge fenn ñëw ba ci jumaa ji ñu ne la nii nga mel waroo mën a dugg ci jumaa ji wala waroo mën a loolu ku nekk jullit bu nekk war na ko dawale boppam kon tamit ñu bàyyi ko xel bu baax baax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw daal na nga xam ne sëriñ bi dañ koo war a jox ma dañ koo war a waajal ñëw gi eh, benn yi ci la bokk njàngum alxuraan mi ci la bokk waaye tamit nga waajal sa jëm ba mën a jax jaxasoo ñëpp ba boo ñëwee jumaa ji tamit di nga mën a def li la war kenn du la wax ne la jubbantigul wala defal nii ndax ñi fi nekk moom dañuy jubbanti nit ñi rek waaye nekkuñ kenn sa liggéey képp ku fi ñëw pour siyaare dinañ la ko yombalal ni ñu la ko a yombalal waaye nag yow it booy ñëw tamit nag ñu ko yombalal ni ñu ko yombalal nag mooy nga préparer sa bopp boo préparé sa bopp rek incha allah boo dikkee rek léppay jàppale bu neex yàlla waaw maa ngi leen di rafetlu kii ba bu baax a baax te di leen ñaanal tamit yàlla yokk leen ndax gis nañ seen taxawaay ci màggal gi te Sëñ Tuubaa moom képp ku ko defal dara rek seentul ne moom yokkute ngeen ciy jële kon ñu ngi leen di bu baax a baax.